Chers amis et fidèles internautes vous qui avez choisi la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste et vrai nee naa abonné ba vous bu cloche de notification tey en ce jour du lundi 14 août 2023 ñu di leen seen numéro acte du jour suñu leen nee acte du jour aujourd'hui dañuy xool li gën festival, fës ci xibaar ñu indi leen ko faram-fàcce leen ko xam ngeen ni que nag démb sitting amoon na fële ci groupe Walfadjri sitting boobu nag lan un ko waraloon gis nañ fa ay journalistes gis nañ fa ay politiciens gis nañ fa aussi ay euh, soi-disant marabout Madame ay sëriñu tariyaax donc ci biir loolu yëpp nous nee nous dañuy xeex ben cause moi pour la libération de kii nga xamante ni mooy Cheikh Bara Ndiaye kan mooy Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye mooy woowee boppam benn sëriñ sëriñu lan la question boobu le sénégalais yëpp di posé dajale say xob dajale say garab nekk ci de bi di tappale di naxaate nekk ci plateau télévision yi di def ay chroniques yoo c'est en faveur d'une seule personne alors que tu parles au nom du peuple sénégalais ce la Cheikh a mis amee tur le sénégalais yu bëri ko plateau bobu nga xamante da sur mais la seule chose que sénégalais remarqué que Cheikh Bara a fait plateau c'était uniquement pour dénigrer tout ce qui est état tout ce qui est institution Cheikh barandjay, de quoi dénigrer Cheikh barandjay, a position position la Madame, il s'était rangé du côté du leader de ex-Pastef Ousmane Sonko donc ci moom la nekkoon parce que gis nañu même ay rassemblement yoo xamante ne dañ koy woote ci wàllu politique dañuy gis Cheikh Bara Ndiaye taxaw ci kaw podium bi jël cadeau est-ce que vous koku mën nañ ko wowe ben nit ko xamanteni am nga neutralité par rapport ci say chronique par rapport ci say faram-fàcc yoo xamante qui koy ci télévision donc je crois que c'est une question bo xamanteni tous les Sénégalais et le peuple doit en poser cette question donc on peut considérer un cher barandjay comme un militant ou sympathisant ou partisan de Ousmane Sonko mu don jël nak ay cause ak défense il est libre il na choix amna ci droit devoir la nit ku nek yow la neex mais su Boba, da ngay assumer c'est quoi assumer dire que je parle au nom de Ousmane Sonko parce que je suis militant et sympathisant mais ne dis pas que je parle pour la vérité ou bien je parle pour le peuple sénégalais Cher Baradia n'a jamais fait ça donc ci bir lolu ñu gis événement yi fi euh, au mois du 1er juin 2023 Il bi condamné Ousmane Sonko par max à deux ans de prison ferme

balaa ñuy am fi ret ñu yaakaar ni que am na ñu topp seen ginnaaw mais depuis lors que ñu teg ko daan mi ngi jaabante ci ay grève de la faim yoo xamante ni taxawul fen bu euh, mujjul fen en tout cas waa groupe Walfadjri war nañ ko mën a indil seen solidarité maanaam neneen dañ koy defal sitting ou bien demander la euh, liberté provisoire ou bien nous libérer définitivement ce ci est ay droit mais nous savons aussi justice dafa am ci ay loi ak ay charte yu mu Cheikh Bara Ndiaye pendant des années Cheikh que deful ci Sénégal a ba jox ko privilège Cheikh Barandia n'a naka assumer ses conséquences donc que je veux dire, c'est dañ ci gis un genre nit man tu député muy Guy Marius Sagna nit ko xamanteni impolitesse dafa nek ci deretam xamadi nek ci bopam ñak xamni muy waxe nek ci bopam pour mom cëfër cëfëri kërti kërti yuuxu saga guddeeg bëccëg lolu mo koy may lim mu bëgg bu len faté nak Guy Mari Sagna rébellion lay dund parce que rebelle la Guy Marius Sagna meun nañu né terroriste la daxté lolu lay wane ci Sénégal il a été élu par le peuple casamançais pour mu honorable député assemblée nationale mais Guy Marius Sagna ne s'occupe pas des problèmes des Casamance franchement je suis désolé Guy pour moi les plumes mu résistance moo koy may fa la nekk ku nekk wax na ci njekk wax ci mu yëkkati foofu ay di menacer les autorités sénégalais parce que intervention militaire bi nga xamante ni bëgg nañ ko def foofu ca Niger ginnaaw coup d'état ba bu mu famee moom mi ngi dànkaafu di menacer kan mooy Guy Marius Sagna ba muy dànkaafe wala di menacer Guy Marius Sagna lan la ci Sénégal Guy Marius Sagna lan la indi Sénégal je crois que il faut qu'il ait raison gardée et que le peuple sénégalais savent maintenant distinguer qui et qui et qui écouter et qui ne pas écouter donc je crois que cadre yooyu mu fi yëkkati kàddu la yoo xamante yu irrespectueux la du ma di ko wax Guy Marius Sagna dafa rew Guy Mari Sagna dafa xamadi Guy Marius Sagna xamul boppam mais je crois que lolu yëpp peuple sénégalais ñom ñoko ko may ngan na ngandalu bu muy jaay guerrier bu muy jaay du ci A du ci B du ci Papa Ndiaye du ci ñaari salaamaaleykum je crois que tey xaalisu Sénégal lañ koy fay su nekké assemblée nationale sama impôt dañ la koy fay sama patente dañ la koy fay privilège yi nga am dama ci bok donc bës bo fi défé yef xamadi ak yef réew duma du chaque jour ci télévision bi di la ko wax mu neex la mu naqadi la bës bu la naqadee da ngay wacc assemblée nationale doto lek suma xaalis dagam sama xaliss mi ngi dugg ci yow il faut que tu respectes le peuple sénégalais waaye bima ci jaaxal dañuy gis benen way bo xamanteni ni disant marabout muy kan Mara dama bëgg ñu seetaani vidéo am dellu si waat daxaa mii ba ren mi ngi wax waye est-ce que président Macky Sall am na ku koy jottalil wala mi ngi dégg li ñuy wax ragal toog kilifa na mokk na man du ma wax sama yónneeku ci dañoo laalul sa njaboot bu ñu fi jàppoon diw nàngam léegi tey ñu woote ñëpp toog daal ne kii kat nàngam te ñii ñuy xeb xebal la ko doy waar ay kilifa lañu Cheikh Bara Ndiaye àgg na ci foo xam ne ma wax leen ko tey ngeen dégg man bu ma toogoon ñu ne ma faatu na wallaahi laxasim du ma ko wet bàkk alxuraan man du ma fenn te ruslu na nag ku toll ni Cheikh Bara ñu ne yoon da koo téye te genn kilifa mënu koo ñaanal intervention mu génn Cheikh Baara ñu def ay mbir ak i lijjanti ba mu génnal boppam moo ëllëg Cheikh Baara bu demee ci kilifaam moo lum leen di wax. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo boobu nga xamante ni kii di Mara Niass yëkkati na ko muy ay kàddu. muy sama wolere nak ñu bokk lo xamanteni mënu ñu ko seddo muy kan Serigne salew mbake mu jox ma cër ma jox ko cër muy respect mo dox suñu digënté waye nak tay ma rañas man sa mbokku talibé maa lay wo ci dama bëgg nga génn ci li nga nek ma rañas parce que tay so taxawé yëkëti ay cadeau xamal ni que Serigne Bara ndjay ab kilifa la ci réew kilifa kan la ma euh, rañas est-ce que kilifa dina tok ci ay plateau japp xalé bu jigen ku melni Adji sar diko fénal guddé ak bëcëk ci kilifa jàpp Adji Sarr di ko yàq lu mel ni xamee est-ce que xalaatul woon ni que Adji Sarr boobu dafa am papa am njaboot am ñu ko bëgg est-ce que kilifa dina toog ci télévision di dénigrer suba ngoon di fen guddeeg bëccëg di wax loo xamante ni dara ñoru ko ci dara du ci dëgg bërkaat démb la ñu génnee audio fii muy accuser Ousmane Sonko biñ ko nee dem na suite Sweet Beauty mu naan dëgg la parce que ñoom ñëpp Covid bi moo leen téye ndaxte mënatuñu dem Maroc mënatuñu dem fen tëj nañu aéroport yeeg maa tax ay sali la ñuy jëm ak làqatu ci salon de massage yi ndaxte affaire bi moom tànk mi ngi ci biir foog foog nga yuqóoli sëñ Baara Ndiaye taxaw wax ko ci ojo ñu tourné tegaat ko ci plateau ñàkk ko jom bi mu ñàkk ko jom mu bëgg a reformuler cas bi di ko waxaat parce que am na ay ignorant am na ay con yoo xamante ni toppoon nañ ci ginnaaw Ousmane Sonko bu Pastef ba nga xamante ni fen bu mu teg ñu ne ko gongo waaye nee naa leen yàlla bi dara teewul moom mooy jël dëgg chaque jour di ko wàcce donc je crois que tey Serigne Bara Ndiaye ba muy def yooyu yëpp est-ce que woowoon nga Serigne Bara Ndiaye wala def point de presse wala ngeen woote sitig nga ne ko ah Serigne Bara yow mi kat ab kilifa nga kilifa kat am nay kàddu yoo xamante ni du ko yëkkati ndaxte Adji Sarr bii ngay saaga guddeeg bëccëg jàppee ko ni sa dom wala jàppee ko ni sa jarbat wala jàppee ko ki nga xamante ne dafa bokk ak sa soxna lepp luñ ko wax donc dina la metti waye dal Ousmane Sonko moy rafet yaay Adji sar moy ñaaw yaay. ngeen bëgg ma ne kooku kilifa la Serigne Bara Ndiaye ñaata yoon la tok ci plateau bi di wax ay wax yo xamante dara teggu ci dara du ci deug di woote appel à l'instruction suba ngoon di wax lo xamante yon mën nako tek loxo chaque jour donc je crois que Serigne Bara Ndiaye n'est pas au-dessus de la loi du question ni que dafa am tour moo tax tey suñ ko dugalee ñi commencé grève de la faim yu ñàkk fayda yooyu yoo xamante ni fait taper la yëfi naxasaar la la di wut nu leen internet pavillon spécial pour ñu génne leen donc la justice sénégalaise moi, moi, war respecter le peuple sénégalais da ngeen fi teg benn loi ak ben conscience. ngeen ne nul n'est au-dessus de la loi ku ci nekk nañ ngay respecter loi bi loi bi teg la ci yoon bi nga ne war ku loi bi loi bi teg la fi mu la donc je crois que y a combien de personnes yoo ils sont en prison waxooguma la sax chef d'inculpation jàkkaarloo guñu sax ak doyen des juges il accouplisse en prison pendant plus de deux ans trois ans cinq ans batay tey ken kenn waxul seen dossier ñu tëdd ko dignement tëdd ko ak sen ngor kon yakarna ni souvent su ngeen di wax ci télévision bi da ngeen di jël ben nit jox ko ben privilège alors que vous oubliez des millions de sénégalais des milliers de personnes yo xamante tay tey ñu ngi accroupir di xaar sen jugement di xaar ñu ñu mënoon def liberté ñooñu ñu mënoon def grève de la faim ñu mënoon leen évacuer pavillon spécial mais defuñu ko donc ñooñu xanaa seen ndey dafa gën ndeyu Baara Ndiaye wala Baara Ndiaye ndeyam dafa gën ndeyu ñële wala ay mbokku Baara Cheikh Baara Ndiaye dañu leen gën. donc je crois que Mara Niass am nay kàddu yoo xam te ne su ngeen koy di naan ay kilifa la wala du sa mbokk mais ba muy toog di saaga doomu aadama yi di toog di dénigrer doomu aadama yi est-ce que xalaat nga ñooñu mu doon saaga seen mbokk yan situation lañ nekkoon donc il faut qu'on ait raison garder ñu bàyyi fumisterie bàyyi naaféqisme bi foog ni ne que seen soulèvement populaire yooyu wala seen rassemblement yooyu mën na intimider la justice suñu tolloo ci réew nag bi nga xamante ni tey benn rassemblement wala benn meeting dafay intimider la justice je crois que nous créer ay loi yo xamantene ne loi yu les sax la ñu xam ko ñu ne kep ko xamantene am nga daraja ministre nga DG nga wala da ngay wax ci télé wala da ngay wax ci radio lu neex defal yoon du la teg loxo képp koo xamante ne doomu la nga sa yaay amul sa baay amul bés bo defee dañ lay tecc ci kasso ñu voté loi bobu ñu xam ne ci loolu lañ nekk il faut qu'on sorte de cette anarchie il faut qu'on sorte de cette manipulation il faut qu'on sorte de ces mensonges et que l'État prenne sa responsabilité, la justice prend sa responsabilité et respecte les 17 millions de Sénégalais qui les ont donné tous les pouvoirs et tous les décrets pour nous exercer la loi la loi doit être exercée De ce demee ba amatul loi anarchie loi fay nekk Quand je crois que Mara Niasse avec tout le respect que je te dois ak Serigne Saliou Mbacké bi ñu bokk ci li nga nekk noonu génn ci quoi te soo demee seeti Cheikh Bara Ndiaye nga ne ko diw nga ne ma naam nga ko ah li nga jiw rek nga li nga jiw rek mom nga góob donte nak pas. ci sa mais muñ rek ne ndogalu ça devait passer par ton destin donc du pour intimidation ou bien faire la pression à la justice que lolu moo tax ñu de a Cheikh parce que Pape alenia a l'a réussi mais je me suis dit que man suma qu'on place au procureur Pape alenia tant qu'il du une prison parce que sa place est en prison parce qu'il en fait trop

ñu ko jàpp bi ñu ñu jàpp ko léegi ba indiwaat ko këram. yéen ngeen indiwaat nii. <laughs> indiwaat ko fan. fii ci këram. bu ngeen ne léegi de delluwaat leen foofu ñu ngi koy teg ay barrière lañ defe ñu ngi koy pare indiwaat këram. ñu ngi pare indiwaat Ousmane Sonko këram. dem leen vérifier moom laa dégg de. <laughs> non comprendre moom docteur ah, ko koy <laughs> neexul comprendre. maanaam moom mi nekk Sébi Sébi Xotaan. mi nekkoon Sébi Xotaan. moom mi nekk yóbbu ko hôpital principal.

docteur leralal ñu way dëkk bi ah, nee nañu dëkk bi dañu doon wax yeneen dëkk parce que dëkk yi damay dem ba tiit. Hmm. defe ne ñoo ñoo gën a pire ay Rwanda wala ay ay kii bu mu yàgg nag nga gis eh, nga gis lu bari ñëwaat. Hmm. ah nee nañu de dëkk bi am nañu taxaw ba beneen eh, niñ ko tëj ñu mënul am. yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo boobu kii di docteur Babacar Niang nag foofa ca Samy municipal moom clinique Souma. je crois que gis ngeen sorti boobu mu def ak suñu naataango yu waa Dakar Buzz ay révélation nag yu doy waar la wax révélation yu doy waar ku nekk xam na ni que kii di docteur Babacar Niang bi ñu jàppee Ousmane Sonko waroon ko yóbbu fële ca tribunal diggante procès ak Mame Mbaye Niang ba ñu ko ci otoom ginnaaw loolu la ne woon sotti nañ ko benn produit produit boobu nag kan moo ko sotti woon nee na produit toxique la dañu bëggoon faat bakkanam ginnaaw loolu lañ ko interné woon boobu nga xamante ni kii di docteur Babacar Niang moo ko moom mais après loolu jur na ay coow docteur Babacar Niang yoon tegoon ko loxo a ñu bracelet électronique après ñu mujj ko bail. donc je crois que def na ay révélation yu doy Ousmane Sonko tey mënul am condamnation de deux ans prison par contimax yoon jëli jiw ko barricade buntu pendant 55 jours Tegui barricade bi même pas une semaine ñu jàppaat ko ci beneen fait Une vol de portable diffusion de fausses nouvelles appel à l'instruction. l'insurrection suñu les chef d'inculpation yépp mu toll ci huit le procureur de la république jàkkaarloog Askanou Sénégal def point de presse xamal ni ni que li la jappé Ousmane Sonko bokkul ak compte max biñ ko le ministre de la justice Ismaïla Amadiar Fall djok aussi joxe les mêmes versions Ousmane Sonko ñu yóbbu ko prison de correctionnel bu Khotat. mu def grève de la faim def ay cinéma am ay kërti kërteem su ko neexee ndékki su ko neexee lekk ay kaldoom ay parteem ñi naan Ousmane Sonko mi ngi ci grève de la faim ñii ne nekkul ci grève de la faim ay avocat am sax xamuñu ay dossier dem nañu ba ci biir ba ji soulever ay feebar yoo xamante ni Ousmane Sonko mosoon na taxaw ne moom mosul am benn feebar lépp pour lan pour faire pression à la justice pour am liberté ginnaaw loolu ñu interné ko fële ci hôpital principal docteur Diane nag mi ngi ñuy xamal ni que est-ce que Ousmane Sonko nekkuñu di ko waaj a libéré ndaxte cité góor gaa ngi noonu ñuy barricade waat lu tax ñuy barricade waat cité góor gi lu tax ñuy barricade waat cité góor gi di jël ay éléments di leen fa est-ce que Ousmane Sonko dafa bokk ci ay personnes sénégalais yoo xamante ni warul de kaso en cas de faute en cas d'appel à l'insurrection Si bu ngeen jëlee Ousmane Sonko dès soir ko cité góor je parle au nom de l'État du Sénégal je parle au nom de la justice fii lay sénégalais yi xam ne ndax Sénégal am la justice wala amul justice. Ousmane Sonko a am huit chefs d'inculpation am condamnation ferme en prison def maison correctionnelle ba pare il a Ousmane Sonko comme ni ngeen ko cag a alors que place est sous mandat de dépôt ngeen a ko dellusiwaat këram barricade cité de Ousmane Sonko de la cité de dafa am ay sphère commerciale ñoom dañuy dans seen dollars fa la ñuy amee dépenses, dépense fa la ñuy fayee location fa la ñuy fayee seen lépp su ngeen barricadé waatee cité góor uniquement pour indi Ousmane Sonko bàyyi ko foofu yéen ngi perturbé waat la vie et l'économie de certains Sénégalais yoo xamante ne seen yoon newul ci politique seen yoon newul ci Ousmane Sonko seen yoon newul ci Macky Sall je crois que nag peuple sénégalais ñoom ñoo wara a taxaw Diakarlo, la justice ñu xool ban dëkk la ñu en tout cas, si les choses que le docteur Babacarnia a dit c'est avéré, Ousmane Sonko tapalé ak nangam sangam menacé waat na len ba ngeen jëlé ko fofu né da ngeen koy yobbu cité goor gi di barricadé wat. xam len ni que nak Sénégal bi ñu nekk kenn xamatul ban Sénégal la donc il est temps que l'État prend ses responsabilités toujours on a dit que l'État a été faible devant Ousmane Sonko am ngeen sen courage le peuple vous a suivi ku nek fogon Ousmane Sonko suñ ko tegee sous mandat de dépôt dëkk bi day tak. gisuñu pëna bu tàkk gisuñu dara lu tàkk tey nag ay intimidation ak ay manipulation mag ay caaxaanaam ay cinéma ak ay comédien su taxee tey ngeen nar ko indiwaat biir këram def ko résidence surveillée barricade cité góor gi je crois que mooy li may wax rek ña nekk rëbës nekk camp pénal nekk Cap Manuel nekk ci prison sénégalais yépp di xaar jàkkaarloog juge pour mu àtte leen je crois que ñoo ñëpp mën nañ leen may liberté provisoire ku nekk ñibbi këram Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ousmane Sonko n'est pas plus sénégalais que tous ces Sénégalais qui sont là. Ousmane Sonko a fauté. Comme Karim Wad avait fauté, comme Khalifa Sall avait fauté et ils ont resté en prison durant toute leur peine. Bakarom il est dégracié. Donc je crois que propos yi nga docteur Babacar si ça avait vrai en tout cas l'état du Sénégal nous doit encore des explications car le peuple est là

ak ngeen jégal ma ci kaddu yi ak fenkat bu am paas ma ne ko góor gi waxaatal <laughs> parce que man namp ma wolof te suma wolof xóotul waxaatal mu ne ma doom ma ko nampap, pap mu ne ma moytul ma ñaar naa bu am baat ak fenkat bu am paas mën dem fu nekk nag di wër di rek mais ça veut dire que je vous ai parlé de la calomnie politique boube. je te le dis ici ce garçon là je l'ai fréquenté et on s'est battu ensemble il est dans mon cœur man dafa am nu ma yàlla bindee man du ma man du ma xam nga ku nekk ak nu ko yàlla bindee man vous m'observez depuis près quasiment 20 ans je suis pas un rancunier man àdduna man dama tëdd de casso, kaso de casso na je Abdoulaye Wade ba ça reste mon grand-père Macky Sall tëj ma kaso je suis allé m'asseoir avec lui je n'ai pas de rancune je n'ai pas de haine xawma loolu ba le

su ànduloon tey ci lu ñuy dund tey nii mooy Ousmane nekk ci kaso bi amul mindeef bu koy mën ci bi daf ko gi parce qu'il considère que peut-être il lui réserve autre chose moo tax ma ne ko nga dal il faut pas écouter les charognards surtout les et là les les les rancuniers de la vingt sixième heure. mais c'est qui ça. mais ils se connaissent. Moi, gars yi quand on devait mettre la coalition il boudait pour des histoires je sais pas quoi et quoi ah, parce qu'il y a des gens qui pensent que la politique c'est une garderie ah, d'enfants non non non non non, vidéo vidéo acte jour parce que éléments yi non, wax non, ngeen non, lu Barthélémy dama foog ne lu nekk la may wax mu ne nga moytul ma naa feq bu am baat mu ko waaw naa bu am baat mu ko ak lan mu ne ko ak fenkat bu am base naa bu am baat baat maanaam baatam su waxee ñëpp dégg ko ak fenkat bu am base donc su ko résumé ci ñaar yi damay jël premier mot bu Barthélémy Diaz muy naa bu am base ma teg ko ci kaw Cheikh Bara Ndiaye deuxième bi muy 24 bu am base ma teg ko ci kaw Ousmane Sonko te 24 la bu am base jeunesse bi topp ko Cheikh Bara Ndiaye naafeq la bu am baat tok ci télé ci plateau yi di fen suba ngoon guddeeg bëccëg di accuser nit ñi tay looloo ko yob fi ko yob en tout cas mu donon sen acte du jour bu ñen leen tay nous vous donnons rendez-vous à demain avec un autre numéro sur VIP People TV le site des grands événements s'informer juste et vrai su ngeen abonné bon noppi bu len faté bëss cloche de notification bi